mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi le réseau DTL pour vous informer tout de suite le Flash Info. Mustapha Kolic à la présentation, Abdoulaye Samba à la cabine technique. Guy Marius Sagnan et le capitaine Touré vont prendre fonction à la mairie de Dakar. L'actuel maire euh, les a enrôlés en raison de leur expérience. Barthélémy Diaz a recruté le capitaine Touré en tant que conseiller chargé de la sécurité et Guy Marius Sagnan en tant que conseiller technique chargé des affaires sociales. Et puis, beaucoup de maires élus lors des élections locales du 23 janvier euh, sous les couleurs de l'opposition, notamment euh, sous la bannière Yewi Askanui. ont rejoint le président Macky Sall, euh, le président Macky Sall d'ailleurs, qui annonce d'autres qui vont arriver. La brigade de police de Diamagun, récemment inaugurée par le ministre de l'Intérieur, a fait une bonne opération. En effet, un jeune euh, une jeune femme euh, âgée de 22 ans avait été interpellée avec 1 kg et 18 cornettes de chanvre indien qu'elle dissimulait. La police de Diamogon continue de faire douter les délinquants de la zone. Rupture de carburant dans les stations de service euh, parallèlement à l'indisponibilité annoncée du kérosène à l'aéroport international Blaise Diagne. Le carburant est également en rupture dans plusieurs stations de service, notamment à Dakar, selon une source, euh, un navire de la SAR, la Société africaine de raffinage, est arrivé hier avec 18 000 tonnes de gasoil. Une bonne nouvelle. Le bon euh, médicament répond à des critères. Il a un circuit et il faut respecter le bon dosage sur conseil d'un pharmacien et prescription d'un médecin. Le surdosage tue même celui euh, du paracétamol peut être mortel, a affirmé le docteur euh, Hassan Diop. Acheter les médicaments à la pharmacie, c'est un conseil. Journée mondiale du livre en prélude à la célébration prévue ce samedi 23 avril 2022. Le, ministre, le ministère de la Culture et de la Communication a procédé ce jeudi 21 avril à la remise de l'eau de livres destinés à la presse culturelle, ceci pour renforcer le niveau euh, ou la capacité des journalistes culturels et autres acteurs des euh, médias. Et puis, c'était tout pour cette partie française tout de suite, la version Wolof. jël ngeen jëf mbokki xibaar yi ci tënk dañu ko yaatal ci réseau de DTN ñu njëkkee ko Guy Marius Sagna capitaine Touré mi nga xam ne nag euh, ki ngi di maire Barthélemy Diaz maire Ndakaaru daal dina leen jël ngir ñu amal ay liggéey foofee ca diwaanu maire yi ba jàppali ko Guy Marius Sagna nag nar na yëngu ci wàllu conseil technique jëm ci li nga xam ne moo di wàllu ndimbal ci wàllu social waaye kii di euh, capitaine Touré moom nag euh, liggéeyam nag dana aju ci li nga xam ne moo di wàllu kaaraange ndax xamoon nañ ni ni gendarme la woon ñu wax itam ci wàllu élection yi jàll euh, amoon ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier ñu ne meek woon ne nag euh, bëri woon na ay maire yoo xam ne ay maire yu bees lañu yi soqe ko ci euh, kujje gi. waaye nag euh, li ñuy nemmeeku jamono ji moo di bari na ñoo xam ne ci maire yooyu nga xam ne ñoo bokkoon ci kujje gi ñenn ñi sax nekkoon ci bañeeru Yewwi Askan Wi tàmmali nañoo euh, yëngu di dem euh, jëmale ci présidence maanaam di seeti président de la république nara lëkkaloo ak moom président Macky Sall sa dina xam ne ne am na ñeneen ñoo xam ne bokk nañ ci kujje gi ay maire war a ñëw ci moom loolu de la xamle. ñu daal di wax ci li nga xam ne nag moo ñeel wàllu kaaraange brigade bi nga xam ne moo di brigade de police ba amoon foofee ca ba ñu euh, samp bu yàggul foofee ca jàmm gën euh, ànd ceeg euh, jëruñ bi yor wàllu kaaraange réew mi ak biir réew mi Félix Antoine Diome ñu ngi wax ni nag tàmbali nañoo def liggéey yu am solo ndax bari na ñoo xam ne nekkoon nañu foofu di def ay ñaawteef kenn gisatu leen ndax xam nañ ni takk yaa nga fa ñu ngi wax ni sax tey ji jàpp nañu kenn ci. ñi nga xam ne nag dañuy def li di jaay dorog euh, soxna sa euh, mu ngi am ñaar fukki ak ñaar yoroon euh, benn kilo yamba ak fukk ak juróom-ñetti cornet yamba daal nañ ko teg loxo interpellé ko ñi def liggéey boobule di waa police bu jàmm gën ñu daal di addu ci wàllu carburant maanaam wàllu gasoil ak essence ñu ngi wax ni nag bari na ci gox yoo xam ne ci biir Ndakaaru dafa manqué ci station yu bari Euh, tey ñu ngi fàttaliku sax fan yi rek ñu ngi wax ni kérosène bi dafa xawoon a euh, taxaw foofee ca aéroport international Blaise Diagne ñuy wax ni carburant nag fu mu toll nii dafa mel ni dafa manqué ci àddina bi li ko waral moo di guerre bi nga xam ne moo am diggante Russie ak Ukraine waaye nag ñu ngi dalal xel yi ndax démb rek daal dinañu euh, jot lu toll ci fukki junni ak juróom-ñett ci ay tonu gasoil Euh, démb la wàcc foofee euh, ca wala démb la am benn bateau bu ko indi ngir ñu yóbbu ko ca euh, SAR muy société africaine de raffinage xel dal na le bon médicament maanaam garab bi baax mooy bi nga xam ne dafa am fu muy jaar ba noppi itam dafay doon garab boo xam ne dañ ko war a respecté ci wàllu dosage te dañ koy jënd ci pharmacie wala ñu docteur bindal la ko nga mën koo jënd sur dosage nag maanaam dose bu ëpp dafa mën naa faat nit ci walu garab nenañu sax ba li nga xamne nak mo soxol li nga xamne ne di paracétamol bii ñu xeb bo ci jëlee lo xamne ne ko jël mën na la fat mu doon nak ay jafe-jafe yo xamne askan wi dañ koy dundu ci automédica automédicalisation manam jëndal sa bop garab te demo ci médecin mu saytu sa wirgu yaram ñi wax nak docteur Assane Diop di soññ ci doomu adama yi ñuy gën di farlu di dem ci pharmacie ngir jëndi ay garab na jamono ju koor yi nga xamne ci jamono koor yi nga xamne mom lañu journée mondiale bi nga xam ne moom la ñu jagleel li nga xam ne moo di ay téere daal di nañu xamle ni euh, ñi nga xam ne nag ñoom ñoo jiite mbir mi di jëwri ñi nga xam ne nag ñoo ñooy yëngu ci wàllu culture aada ak communication daal di nañu euh, may waa presse culturelle ay euh, téere yu bëree bëri ngir ñu gën a mën a jàng wala ñu gën a gëstu ci li nga xam ne nag moo di. Euh, walou économie walou journalisme ak li ni mel ak wàllu euh, àddina fi mu tollu ci euh, doxalin mu ay yu am solo dinañ ko amal ci fan yi ñi ñew ñu ko nar amal ci samedi ñaar fukki fan ak ñett ci avril bi ñu tollu ñu nar ko journée mondiale du livre manam bis bi nga xamne mom lañu la téré ci bi mu doon liggéey boo xam ministère de la culture amal nañ ko ay téere yi ñu may journaliste yu bari Euh, foofu lañ ko amaloon ci maison de la presse mbokki lii moo nekkoon xibaar yi ci tënk nongali Moustapha Coly nekkoon ci kàddu gi di leen jaajëfal bu baax a baax te di leen di daje ci suñu yeneen jotaay jërë ngeen jëf